Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf candidat yi ñu rëkkale woon ci contrôle parrainage yi tey ji la ñuy jàll baa ñu jaare fa faxos élection présidentielle yi 2024 yi sur soit nañu ñaar fukki candidat ak ñaar lañu tey ci altine ji ca la war a jaalaat ca kanamu commission contrôle parrainage ga ca conseil constitutionnel ngir régulariser fa seeni doublon externe journal lay fa bind na Idi ak compagnie jamono ji ku ci toog ci neen du toj a kaay bi gis na ci la ténéro politique doon ngàññ ka jéebaane ni ñu organiser vérification parrainage yi le quotidien mi ngi ñuy wax ne premier ministre beneen bu fi woon di Mahammed Boun Abdallah Dionne moom it faylu na ko ci candidat yi ñu tëye ci contrôle parrainage l'observateur mi ngi ñuy xibaar ne am na lu mat ñaar fukk ak juróom-benn ci ñoom ñoo xam ne conseil constitutionnel la ñu ko sippi ba tax ñu déposé bu recours Sarr kandi fi ñu toll nii kenn tanewula ci ban fichier électoral la ñu war a gëm Cheikhna Alassane Sall borom république des valeurs moom li mu gëm ba wax ko ci xët mu njëkk Walf Quotidien mooy ñi ñu ko séq dara taxul ñu def ko lu dul bëgg xàllal yoon wi candidat bu Benno Bokk Yaakaar bi di Amadou Ba ngir élection présidentielle yi moom mi ngi ñuy wax it moom journal Tribune kii di Karim Wade 24 yi ci waay yeewi askan wi mooy doole ji mi ngi ci loxoy Ousmane Sonko Sonko maître du jeu fu mu far fa la doole ji ëpp le mandat mel ko ndax yaakaar nga ko ndax Ousmane Sonko jamono ji wute wut ak nit kuy dund ci wàllu politique ñu gas ba mu xuut suul ko ca lise ko ne waaye suulagul nekk rek rek ay awakam déposé nañu ca conseil constitutionnel seen mémoire de défense duel wala duo lan moo ci am ci diggante Amadou Ba premier ministre ak Mouhamadou Mokhtar Cissé directeur de cabinet bu président mooy ci jamonoy Léopold Sédar jamonoy Macky Sall jafe nañu gis ci réew mi ab premier ministre ak directeur de cabinet président yu neexu li neex mi ngi ci l'observateur ubbil yéenekaay bi compagnie aérienne bii di Air Sénégal journal bi nee nañu mi ngi waaj daloo juróom-ñetti roplaan yu yees ak plan de vol ak ligne yu yees ak avion yu war di déparé ci aéroport Léopold Sédar Senghor bu Ndakaaru Gorée Mémorial ba ñu fay def door nañu liggéey ba journal L'As moo joxe xibaar bi ci xët daanaka fanweeri at atum daaw bisu tata bi ñu taaloon ca yaraax ba ñaari nit ñàkkoon ca seen bakkan sursoi xëy na ci ba di wax ne waa ji ñu naan Sayer Fall bokk ci ñuy tuumal ne ñoo taaleen bus ba te mu dawoon dem Amérique kilifa yu Amérique yi teg nañu ko loxo loolee ginnaaw mandat d'arrêt international bu bàyyeekoo ci doyen des juges bu Sénégal moom Sayer Fall nag nekkul ci kaso mi ngi ñu tëye ci centre de détention de migrants bu nekk ca Pennsylvanie bi ko américains yi jàppee ba wax ko li ko justice bu Sénégal di toppee yéenekaay bi ne nañu li leen Sayer Fall wax moo di li ñu wax dara du ci ma bëgg maa moom la ñuy xaar ci équipe nationale football ndax ca Côte coupe d'Afrique ba ñépp a ngi leen di xaar réew ya fa nekk yépp li goney Aliou Cissé yu yor mu di coupe bi moom la ñu nangu ñu nangoo ci xët mu njëkk record yéen a ne gaynde Sénégal yi tey jii ci la tàggatoo ak waa Sénégal ci max amical bu ñu war a ak Niger bu 6 ci ngoon jotee ca stade Abdoulaye Wade ba ca Diamniadio stade yéen a kaay tuddee ko balle d'Orovar bu gaynde yi laata ñuy dem Côte d'Ivoire Sadio Mané di kenn ci gaynde Aysatu Tamba la tudd 18 la am ab élève terminal la buy jàngee ca collège privé bu mbaaw ku timide la ku calme la ku effacé la teg ci jàng na alxuraan it ba wàcc